mbokk yi teewlu ci Sénégal 7 point com ginnaaw nag ab accident bi nga xamante ni rek ndiki démb fële sa duwaanu Maroc mu nekk ab artiste boo xamante ni kenn dootu ko naatable si réew mi di Wally balaago Seck moom Wally sekk nag ginnaaw ab concert bi nga xamante ni rek moom la amaloon fële sa duwaanu Maroc si xibaar yi nga xamante ni rek am nañ ko ginnaaw ba mu joué concert ba noppi di ñibbi fële nga xamante rek moom moo di si këram ak ñamu mu àndaloon si biir oto bi. Wally nag otom bi dafa daal di mujj def li nga xamante rek moom moo ab accident ginnaaw nag ab benn oto boo xamante ni moo nekkoon si ginnaawam oto boobee moom moo daal di mbëkk rek Wally Seck ak ñi mu àndaloon si biir oto bi mu nekk ay mbir yoo xamante ni rek xibaar yi nga xamante ni jot nañ koo am. am na sax ñu si jot am ay gaañu gaañu eh, si biir oto bi lépp lu si mënta am mooy jàpp leen ne waa ji nga xamante ni rek moom moo daal di mbëkk oto Wally Ballago Seck bi dafa daal di daw bi yëf amee ba noppi kenn tegu ko bët kenn déggu ko kenn gisu ko waaye tamit li si gën a yéeme mooy kenn xamul kan moo def boobu la ñaaw teef kii di soxna ay dara nag ginnaaw ba mu daal di yëgee boobu xibaar dem na ba noppi fa nga xamante ne rek moom mooy sa duwaanu ngir ma saw accident bi nga xamante ne jëkkëram def na ko ak ñamu àndaloon foofee sa duwaanu mbokk yi teewlu ci sénégal 7 point com li lañ leen indiloon ci xibaar dinañ leen ko toppal ba mu leer ci biir sénégal set point com jàngeen jëf